bismillahi irrahmani irrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin annabi al ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallim taslima yow ngay ci yàlla akoob yonente may lala jiit nun ngay ci yow dong ak doy loola rekk kanu jiit yow mooy ci yàlla akub yonent may lala jiig nun mooy ci yow dongu ak doy loola rekk nu jiig yaaraa si yàlla akub yonent nun ñëpp yàl nanu lay raase ka far yàlla la jig yaanu ngir moo la xëppi njariñ nun yaanu xëppi njariñ jiitul nu topp la teeg fal yaanu fal moo tax nga am li nga am yaa nu am li am doog nu nit bu noolay defal lala saaf yaa nuy defal lu saaf moo tax nga jëkk ta jaak yaa tax nu jëkk ta moo saytu sak tos ta yor saw nga saytu sunu tosak sunu xos ku yul sawratal dana koo xam ne ta sawratali ca jot mukk yàlla yal na ko fekk koo xam ne te yoo saw yi dugtil ca jot mukk lii bon yàlla yal na ko fekk yaa yegg jote yaa jot yàlla yaa jotit nun ñepp yàl nanu lay jot jot ci yow téléphone na ngay jëlik ak ndolleen lu sax di nu yet nuy dolli koo ci yow cant ak ku di yokkal nu dig wi ci gépp wàll guy maye ndam yokki nu dub xol wu nuy taxateeg yow daa nga yokku nit daa nga yokku ndigam yokkal nu yépp ci saag baax ak karaama